mu yàggal fi kilifa gu tedd gi di cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ngir wéyal liggéey bi ci ni ñu ko tàmbalee woon ci njëlbeen ba egsi ci li nga xam ni mooy jotaay yu mujj yi tey jii nag nga xam ni mi ngi dëppoo ak ñaari fan ci weeru safar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo it ak fanweeri fan ci weeru août 2022 fii ci Touba Daarul Mannaan kër Cheikhul Khadim ci teewaayu kilifa xam naa kon euh, dafay mel ni kon sëñ Cheikh Abdou Latif mi nga xam ni jëwriñ la ci liggéeyub sëriñ bi teew fii jotaayu xataayu waxtu wi ñu jox ko rek mu ubbi ci ay kàddu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu bokki taalibe ak bokki jullit yi fi daje yëpp jiital ci nuyoo bi sunu kilifa gi toog di sëñ Ahmad Badawi di nuyu itam mbooloo mi nga xam ne ñoo nas lii ñoo nas ngir mu am solo mii. mi fi dajale tey mbooloo mi te muy mbir mu am solo moo xam ne nañ ko waxee woon rek lépp lu ñuy def ci alxuraan defe ko Touba la gën a yeeyee alxuraan Serigne Touba moo ko moom moo ko bindal bopp wax ko kon lu leer la kon bu ñu dee daje ci alxuraan ci réew yëpp yeeye nañu def ko Touba moo tax ñi taxawal lii lu baax lañ def te fuñ fi bañ ko tàmbalee ba léegi maag ñoom noo koy ànd. ci turu sëriñ bi rek lañ ci doon wax dafa kon nag ndax sëriñ Muntaxa itam lépp luy liggéey bi sëriñ Tuubaa moo ko war taxaw rawaate lu jëm ci alxuraan alxuraan da ko ñor noonu ko alxuraan ñore nag moo tax lu ñuy def ci alxuraan ci kilifteefam lay dellu sëriñ bi it boole woon ma ak ñoom moom ñu ci ñoom ma ñëw ci ñoom toppatoo lépp kon bu loolu amee bu ñëwee war ko tàmbali danañ fi ñëw ci turu dañuy fekk kilifa yi fi daje bi mbirum sëriñ bi la sëriñ bi bég na ci santaane na ko rafetlu na ko mook ñi koy taxawal ñoo ko ànd boobu ba léegi kon nii ko sëriñ jili ñag ñoom ñii xalaate taxawoo ko ni sëriñ xaali jaxate ñoom ñii ñu dox ci ba fii ñu ngi ñaan ñu àggale ko ci lépp ci alhamdulilahi rabbil alamina lépp jub lépp rafet sunu borom nangu lépp sëriñ Tuubaa nangu lépp noo ngi leen sant ci kilifa yi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké euh, ci kàddu yu rafet yooyu ci ubbitali xam ngeen ni fan yii liy aju ci mbàkkum dëkk bi muy setal gi mooy ji moom lañ ko dénk moo tax mu ñàkk jot ci yàgg fi waaye di fàttali mbokk yi nii sëriñ Cheikh Ahmadul Badawi Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadel nga xam ni moom la sëñ bi dénk lépp lu aju ci wàllu université bi muy complex Cheikh mu ngi ci jot bi ak sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbakke Gaynde Fatma di président commission communication Màggalu Touba moom mu ngi fi sëriñ Cheikh Ibrahima si moom it mu ngi fi teewal fi sëriñ Mouhamadou Xabban Mbacké moom sëriñ Fallou ngir njëkkante ak waxtu wi kon dafay mel ni euh, dañuy jox sëriñ euh, Ibrahima Sy mu wax ci turu sëriñ euh, Mouhamadou Xabban Mbacké moom Cheikh Mouhamad Al Fadel bismillah an anzala hadha alkitaba alayna liyakuna bashiran wa nasira ashaab alsaadati walfadila uhayyikum tahiyyat alislam wa aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh أمام هؤلاء السادة وأمام هؤلاء الوجه وأمام هذه الوجوه النيرة أتصرف بأن ألقي كلمة من الشيخ الحاج محمد خبان مكي ابن الشيخ الحاج محمد فاضل مكي المكلف بشؤون المدارس القرآنية من قبل الخليفة العام لتاريخ المريدية هو الذي كان يريد أن يقف أمامكم ليفتح هذا الاحتفال العظيم ولكن مع الأسف تلقى متأخرا في الليل أمرا من الخليفة ليقوم بهذا الأمر متبكرا ولهذا السبب أرسلني بأن أنوب عنه لألقي الكلمة وليست الكلمة إلا إننا نفتح هذا الحفل القرآني العظيم حفل أهل الله وخاصته sëriñ Xaban Mbàkke moo waroon a taxaw fii ubbi xafla bu mag bii di aflab alquran waaye nag biig sëñ bi da koo woo te booba xaw naa guddi jox ko ndigal soññ ko ca waxoon ko ne ko bu xëyee na ca xëy bi mu xëyee nag mu ne ma man kat gannaaw sëñ bi daf ma woo biig jox ma ndigal soññ ma ca ne naa ca xëy amatuma sañ-sañ di xëy ci leneen lu dul loola waaye nag demal boo demee ah nga nga taxaw fa rek nekk sa nekk taxaw fa nekk sama sama sama niyaabatan an ni nga wuutuma fa kuutaay li nag du baat yu may wax du dara li may wax rek mooy lan ci kanam sang yu tedd yii di sëriñ Ahmad Badawi al alimul kabir ibni Seex Alaaji Mahamadu Fadal Mbakke wa sëriñ Abdul Ahad Mbakke al alimul musaqaf al batil ki nga xam ne mooy yore commission màggal gi ci seen kanam ñoom ñaari kilifa yi laay déclaré ne xafla bi ubbi nañu ko ubbi nañu ko bi salaamatin wa afiya yàlla nañ ko tëj bi alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu